nag yi nga xamante ni dañ fiy ñëw pour sagal leen lu mel nii waroon nañ ko def daaw mënuñ ko def ndax Covid bi yéen ñëpp xam ngeen li fi jaar donc bés bi dañ ko leboon daaw waroon ko def ren moo tax ñu baal boole ñaari bés yëpp def ko tey ma leen ci jaajëfal di leen ci nuyu bu baax donte jaxasoo bi ku nekk sa liggéey bi nga nekk tax na ba duñ ko mën a am niñ ko bëggee waaye na leen wóor ni bàyyi naa leen xel bu baax ku leen bàyyi xel la ndax seen place ci entreprise bi ci Lonase loolu ñëpp xam nañ ko donc bés bi tey bés la boo xamante ni xam bi ñu xam seen cër ak seen place ci entreprise bi moo tax ñu dajale leen fii tey ngir delloo leen njukkal. donc maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen njukkal di teg loolu yëpp ci loxo monsieur Niang bi nga xamante ni moo leen fi teewal. di ko remercier moom monsieur Niang te di wax ñëpp nag moom de mësta dugg sama bureau ba wax waxi boppam waxi vendeurs yi lay wax intérêt vendeurs yi rek la may mas di wax. loolu dama leen koy seedeel intérêt vendeurs yi saa yu ñëwee sama bureau loolu moo ko yëkkati may wax ni xam bi ñu xam ni vendeurs yi ñoom ñooy dooley kër gi moo tax mënuñu leen seetaan ci dara te lépp loo xam ne nekk ngeen ci incha allah dinañ ci def suñu kéemtalaay kàttan xam bi ngeen xam ni dangeen doon doole ci kër gi moo tax ba ma ñëwee li ma njëkk def bi ma laajtee seen wér-gu-yaram ñaata la leen LONASE di jox ñu ne ma 5 millions la ma ne leen def naa ko 15 millions ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ma leen di encourager ci liggéey bi aussi parce que xam nañ ni du liggéey bu yomb dafa laaj ay sacrifice yoo xam ne yéen a ngi koy def guddeeg bëccëg te loolu na leen wóor ni xam nañu ko te teg nañ suñu bët donc dañ leen di encourager ci liggéey bi ngeen di liggéey ñu ngi engagé wu aussi ci turu Lonase di leen wax comme ni ma ko waxee sànq lépp loo xamante ni mën nañ ko pour yombalal leen seen liggéey incha allah dinañ ko def en parfaite adéquation avec les contraintes de l'entreprise parce que nag Lonase entreprise la boo xam ne dafa am lu mu mën am lu mu tële waa ñu war a trouver équilibre bi nga xamante ni moom la vendeurs yi bëgg ak li entreprise yi bon te li ci gën a ñor vendeurs yi dama xam ko mooy affaire bobine vendeurs yi moom xam naa ni bëgguñu or bëgguñu jamaa bëgguñu xaalis bobine daal lañ bëgg yu yomb dégg naa leen bu baax ndax xam naa ni seen ndam mooy ndamu Lonase seen performance mooy performance Lonase euh, te gis naa ni li ngeen di wax ni ñor na leen may wax rek ni wàllu kees yu tamit kees ku yi tey ndaje bi daf may permettre ma ñëwaat ci wax naa ko monsieur Niang waxati ko dama dama bëgg effort yi nga xamante ni LONASE mu ngi koy def pour fexe ba point de vente yi gën a rafet gën a set loolu dama bëgg ngeen jàpp ci bu ma ko fàttewul woon de dinaa tànn fukki nit ñoo xam ne ñoo gën a rafetal seen point de vente tey ñu récompenser leen ndax am na yenn point de vente yoo xam ne ni ma gisee ñu jàpp ko di ko téye ni jàpp naa ni ku respecté sa liggéey waroo xëy ci point de vente boobu loolu maa ngi leen ci ñaax Lonase mu ngi defaraat point de vente yi ñu ngi koy peinturaat ñu ngi koy defaat waaye suñ ko peinturé boo leen ko entretenirul jàpp naa ni ni ñu bëggee euh, yëf yi mel image Lonase aussi dina ci sooxe te loolu dama ci am yaakaar ci yéen point de vente yi nga xam ni seen teraanga suñu teraanga si la ngeen fonk ko respecté ko parce que seen outil de travail la te da ngeen fay recevoir ay clients aussi clients yi ñu war leen respecté loolu vraiment monsieur Niang ak maa ngi koy wax vendeur yëpp ndax ude nu mu la gisee da lay ëwale client bi nu mu gisee Lonase di doxe rek foofu lay teg Lonase donc image Lonase dafa nekk loo xam ne lu am solo la loo xam ne direction générale dañ ko bàyyi xel te di ñaan di leen di sàkku ci yéen di leen dagaan suñu kees yi seen kees yi laay wax ngeen fexe mu gën a rafet suñ ko defaree ngeen téye ko gën ko setal ndax nit ñi mën gën mën ñoo gën a respecté ñun waa LONASE su ma nee ñun waa LONASE nag ñëpp la ndax kuy fayee ko LONASE LONASE nga bokk fi may daanelee sama kàddu mu doon réflexion bu am solo mooy industrie jeu dafa nekk ci mutation fii ak ñaar fukki at li ëpp ci activité jeu mu ngi dem ci digital te loolu am na lu mu nar a impacté ci ñi nga xamante ni danoo yor ay kiosque di ci liggéey di ci daan seen doole donc dafay jaadu monsieur Niang yéen seen biir ngeen commencé di xalaat di anticiper ci choc yooyu di ñëw parce que tàmbali ne te kanam la jëm lu mat a bàyyi xel la moo tax seeni daje bu mu nekk waxi bobine kese nay doon aussi naka ngeen di concurrencer loolu nga xamante ni dafa ñëw nara dal dal ci seen liggéey te mu doon loo xamante ni boo leen ci jógul ñu ànd kook yéen jàppale leen ci je pense que kenn du ci mën dara ndax nag balaa nga naan naam ne fa loolu maa ngi leen di ñaax di leen woo pour loolu ngeen gën ci bàyyi xel ngeen xool seen positionnement parce que yéen ay ay vendeur la physique si vous êtes sur le réseau physique y a le réseau digital boo xam ne dafa leen di concurrencer et vous devez faire face à la concurrence et pour cela vous pouvez compter sur l'appui et le soutien de la direction générale et de toutes les équipes de la LONASE pour vous soutenir maa ngi leen di wax ni gërëm naa leen sant naa leen di leen ñaax aussi ñu gën a farlu ñu gën a farlu ci liggéey bi ñu gën a farlu ci liggéey bi gën a am taxawaay ci liggéey bi parce que loolu mooy tax fii nga xamante ni ñun ñëpp teg nañ fa sunu bët ngir yóbbu fa kër gi ñu àgg fa maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ni kontaan naa lool ci daje bi bu beneen yoonatee nag directeurs yi yéen dem leen toog ci gannaaw parce que yéen fii du seen bés bésu vendeur yi la ñoom ñoo waroon toog ci kanam maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ni kontaan naa merci beaucoup jërëjëf